wal gu njëkk gi mooy lépp lu doon dund da ngay faatu ñaareel wal gi nag montagne yeeg garab yeeg lépp ñooy nërmeelu ñu taxañ dënd bi muy muy suuf si teg nee taxañ asamaan si teg nee moo téema yóg dénkaane waat fàttaliwaat te soññewaat ngir noo ngi dem te dund paat amaana dig bi jege naam aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawiran wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki tali bi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel di ñaan Cheikh Ahmadul Muntaqa mu gën a ci gën a di ko ñaanal Cheikh Ahmadul Muxtaar waaye di ko ñaan Cheikh Abdul Rahman mi nga xam ne moo jiita liggéey bi fédération Itihad Atbaahil Xadim li taawuni wa tamsik bi dil xawim ak mboolem ñi ci aju ñëpp ak mboolem jullit yëpp waaye di ñaan suñu way daw la jiitu yi yàlla dolli seen yërmande ak seen leer mbokk yi ko baaxoo xamee rek euh, ci bis bu mag bii nga xam ni wilaya baaxoo na koo taxawu muy bisu way dawlu ñu tàmbalee ko woon ñu def nag at mu jot saa bu jubee ñu di ko waajal ci njàngum alxuraan waaye njàngum xasida waaye askar ak na bi ak mboolem loo xam ne dana jëriñ ab jullit noonu nag lañ ko baaxoo defaate waaye nag at ma jotee ñuy tànn benn tomb boo xam te ne bii danañ ci waxtaan ngir fàttali ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci demaguñ nuñ gën a mën a waajalee ña ëllëg ndax ña dem moom dem nañ ba noppi ca fi ne la ñuy xam-xam nañ ko ñun ñu demaguñ nag donte ñu ngi leen di ñaan ñoom ñoom ñu ciy jot waaye ñu ne nag jaadu na ñun ñu waajal suñ bopp. kon tomb yooyu lañuy ñuy def at mu jot ñu tàmb benn tomb tey nag xam naa dafa mel ren ab mihawar lañ tànn sax mihawar bi nag dañ koo tënki ci ma baadal mawt loolu nag xam ngeen ne lu yaatu la waaye ñu am ay mbokk ko seqal ñii di ci wax ci dénkaan yi sëriñ bi def ñii di ci wax ci li ci alxuraan wax ñii ci wax ci leneen ñu nag incha allah tom bi ñu ba waxtaan ak yéen mooy marxala yi nga xam ni mi ngi xaar doomu aadama bi bu faatoo diggante bi mu faatoo ba keroog muy dem àjjana wala sawara loolu kon nag mbokk yi doon lu mat a xel lool doon lool kenn ku ne war nga ko gëstu fexe koo xam maanaam li ñaan li ñaan la lay xaar. ndax kenn ku boo xamee li koy xaar ak nam mel loolu war na ko pousser ci mu jëf jëf jooj dana ko mën a euh, euh, jariñ wala dana ko doy sëkk ci marxala yi muy war a jaar nga xamee ne marxala yi muy war a jaar marxala bu ci nekk jëfam rek moo ko fa mën a jàllale waaw yooyu nag bu ko doomu aadama xamee dana tax mu gën a waajalaat boppam daa tax mu gën a bàyyi xel boppam ndax yi ñuy bëgg a wax nii muy fukki fukk ak ñeent barab yoon xam ne bi nit ki saa bu buñ faatoo ba denc ko li ñaan am na fukki pom ak ñeent wala fukki xel ak ñeent yoo xam benn bu dana ci sóobu ca benn bu ci nekk nag la ko cay mën a muccal mooy ay jëfam ndax mbokk yi li ñu wax am na waaye ramm nag balañ koo def nit ki day fekk mu jaar ci ba noppi bu bu at mi wut nag kon bu war a ndimbalul yàlla fekk ko fa wala leen fekk fa loolu nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wa xam ngeen ni mooy ki nga xam ne mooy royukaayu ñëpp mooy ki gën a mat mooy ki luñ suñ borom am lu mu ko nëbbu lu ñu xamit xam na ko bu am na lu ñu koy teggil dafay laa lu ñu koy woyofal kon nag naan yonte bi lay doon. te sallallahu alayhi wa sallam de moo dénkaana ni dañ bàyyi xel ni faatu de am na xatar lool faatu lu métti la la ca naa faatit kasaani ki noonu ndax moom ñëpp xam ne moom yonte bi sallallahu ay fanam yu mujj wala ay waxtoom yu mujj ñi ko jege woon ñu jëlee ci sayyidina aïsatu radiyallahu anha mu wax ni yonte bi ay jamono yu mujj de moom bëggatu dara ci àdduna ngir ni ngi gis yonte bi alayhi salaam di ko dundee ak li muy yëg soxna aïsatu wax na ni yonte bi alayhi salaam ci saam yu mujj juróom-ñaari morso yoo xam ne da koy tooyal di ko tegandoo ci aw yaramam waaye na yëpp day fendi ngir tàngooru yaramam ak jaxasoo gum jaxasoo yonte bi nag jamono yooyu nag ci la dénkaan dénkaan bii waxoon ni. na ba na ko ñëpp bàyyi xel ab dénkaan nag mbokk yi day tax taxawaayu bataaxel wala day tax taxawaayu euh, ndigal yonte bi nag waxoon ne nañ ko bàyyi xel ngir lii buñ ko bàyyee xel mën nañoo dimbale ba ëllëg buñ faatoo suñ borom mën nañoo maanaam suñuy jëf mën nañoo dimbale wala boog bu suñuy jëf jeexee ndimbalul yàlla mën nañoo dab yonte bi daa waxoon ne maa ngi leen di dénk ngeen bàyyi xel julli waaw loolu da ko baamu ñetti yoon nii na ngeen bàyyi xel waxtu juróom. ndax ginnaaw wax juróom kat moom la yonent bi wax ni asalaatu imaadu diin fa man aqaamaha faqad aqaama diin fa man xadamaha aw aw fa man tarakaha faqad xadama diin yonent bi nee na bàyyi leen xel julli ndax julli mooy kenn li nga xam ne tey bu doon bu doon diine ji am naan lenn kenn képp la am nga xam ne boo rësee lépp rës neen mooy julli nee na ku ko taxawal day mel ni taxawal nga diine jëpp waaye ku ko bàyyit day mel ni màbb nga diine jëpp yonent bi sallallahu alayhi julli mooy li nga xam ne suñu borom ëllëg moom lañ njëkk a seet moom lañ njëkk a gëstu nee na boo gëstoo julli julli mat danaa li ci lépp jërul seet daanaka lépp mat na waaye su gëstoo julli mu ne kon lépp darul xool dara matu ci kon julli googu nag bi dénkoon nañu ko ci ay waxtam yu mujj nañ ko bàyyi xel waaye dama ay saa saa teg ca ni maa ngi lañ di dénkit ngeen di sàmmonteeg àq yi dox seen diggante ndax àq yi dox seen diggante kat may sax ne ëllëg lu sonal nit ki. dëgg dëgg dëgg dëgg mbokk yi dañ xam ne àq yooyu la ndax suñu borom moom buur la bu bari yërmande mën nga koo dëkki tooñ di ko dëkkee tooñ guddi ba bëccëg ba faatu ci yërmandeem tax mu jéggal la waaye nag àq yi nga xam ne amee nga ko sa mbokkum jullit loolu ma suñu borom ak maandoo ma tax da cay maandu sa mbokkum jullit rek moo la mën a jéggal waaye keneen ku dul moom mun mun la koo jéggal ca mbokk dañuy wax ni tar na tar tar bopp diggante yaay ak doom. wala bàyyi doom li muy jigee jigee jigee nit ki dana fa toll foo xam ne bii su ko wajur amee amelee àq benn àq suñ ko ne sa wajur de bu la fay àq ji man na dem sawara danaan na ma ko fay can dem sawara nit ki daañu ko wax ne ko sa yaay ak sa baay ak sa ñëpp dem sawara nga dem àjjana mu ne mu ne waaw ndem nag wajur moo fa dul mën a jég moo fa moo fa mën a baal doomam àq wala doom moo fa dul mën a baal wajuram àq kon rawatina keneen moo tax yonent bi waxoon ni. di leen sàmmonte àq yi dox seen diggante bala ngeen dem ndax àq yooyu kat sew na sew goog ëllëg ko amel benn àq képp ca baalu la ko da nga ko koy fay. moo tax Seex xam di wax ni ki perte dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ëllëg mooy ki nga xam ni andi na ay ay tuyaaba yu bari mooy ay julli juróom mat na ay kooram mat ay leneen mat ñu ñu ju ñu jàkk ñu juul maanaam ñu ñu ñu ñu juug ko muy benn jal waaye bañ ko jógee muy benn jal bañkat kat kon kii na dem àjjana am mbokkum jullit moom dëkkaloo ni ko yow kat mënu góor ndax danga maa maa amel àq ndax maa yow dañoo dëkkoon foo toll di taal saxaar muy ñëw sama kër foo tollu yaa ngi sotti mel sama buntu kër foo yaa ngi sotti ndox sama buntu kër wala yow kat dangaa mënoon sa bopp tabaxoon am taax mu tiim ma foo toll di taxaw sa sam taax di xool sama biir kër loo fa warta xool wala yow kat mënoon nga sa bopp foo toll yaa ngi togg togg gu neex xet gi di ma xeeñ maag sama waa kër ca dawuñu ci may loolu àqal nag ma koy fay nga tibb jox ko nga dem ba bëgg dem sa doom ñu la ah bàyyi di dem ndax man de lii ma dal yaa ma ko teg ndax bi ma juddoo da ma waroon turu tuddee turu baax wala sax tuddee nga ma turu baax waaye danga ma waroon yar yarub diine wala da ma waroon a jàngal waaye jàngaloo ma woon yoroo ma woon danga may fay nga jël jox ko nga bëgg dem sa soxna la ah, mënu koo dem de man mi de amee la am àq joo xam te ne bii àqi boroom kër ak soxna dawoo ko sàmmonte maag sa morom ñoo nekkoon waaye da ko jëloon teg ko sama kaw di jël sax sama ay di ko jox di loo jël lu baax jox ko jox ma safaan da nga may fay sëñ bi nee na dañ koy topp borom àq di ko fayu ba lu baax la amee woon lépp jeex ca moo ne de ñi mu ameel àq jeexuñ sëñ bi nee na bu ñu koy def mooy ki mu ameeloon àq ca mu lu mu ko fayee danaa ko naa la wàññil sama nga xam ne nee na sëñ bi kooku day mujj nii te boobam joojee day jeex takk ba léegi ay bakkaar képp lay dese nee na mooy dëgg-dëgg perte moo tax yonent bi wax ni kon. bàyyi leen xel àq yi dox seen diggante ni ñu koy bàyyi xel nag mooy loo man ci mooy ca tooñ nga di ko def loo man ci mooy ca lor sa mbokkum julit nga di ko def wala ba boo ko yëgee nga jéglu ko ba mu la ko yonte bokk na ci dénkaane moo di àq jigéen ñi maanaam yonte bi nee na bàyyi leen xel àq jigéen ñi ndax jigéen dafa néew doole ca lam man bariwut kon ku ci yor soxna nee na jël góorgóorlu rikk waay àq yi wax sa sa digganteeg moom dee ko def loo man ci yërëm ko day ko def loo mën ci dimbale ko day ko def xataa sax bu ñu la joxe soxna ci xamut yaa ko war a xamal ndax àq la joo ko ameel daal see teg ni na ngeen xel àqi jirim yi jin yi mooy ko waajuram dafee waajuram dafee jóge ca muy gone kooku kon alalam dañ ko ko war a sàmmal waaye dañ ko war a sàmm ci yar ko ci jàngal ko yonte bi nag ak yeneen ak yeneen waaye kon dénkaan yi bokk na ci yim dénkaane ci ay fanam yu mujj wax ne nañ ko bàyyi xel ndeen nag yonte bi ay salaam moo xam la la muy fekk ak li ci nekk ba wax ko kon na kaneen suñu yaakaar ji di Seexul Xadim ñëpp xam ni lu mu dénkaane la lu mu wax la ndax ginnaaw moom daa wax ni ña faatu de fi ne tey jii boo leen fëggoon ni leen lu ngeen gën a bëgg ñoom dañ naan nañ dellu adduna ngir ñu mën faa jëf lu ñuy jariñ ndax boobaa xam nañ xam nañ réalité yi xam ne boobaa xam nañ li xew moom it moom moom it yaakaar naa xam gu mu xam la ci nekk moo tax mu bind di ñaan suñu borom di ko ci musal ak ay wajuram ndax ba ñoom ci xasida gi ñu wax sindii di da nga fekk maan wa najjinii wa jamii al muslimin maan wa najji balti amin yàllaaw suñ borom maa ngi lay ñaan nga musal ma ci musal mboolem julit waaye na musal sama ñaari wajur ya wax fir la naa walaha wastur maha ibana wal tuf bi naa biha fil hawli yàllaaw suñ borom yàlla nga leen yàlla nga leen jéggal ci ma ci sutura sutura leen seeni ayib te nanga leen ñeemante ci yàlla nga leen musal ca musiba ya wax ni an ha tajaawasu yaa arama nafamaa lanaa siwaa kontal bari yàllaahu daal li ma ci gën a yitteel nag mooy fii bar saqin ji ji mu wax fii bar saqin maha xab rin kullaha wasaran wa min kurubin wa xawfi na jallaaw xase ko boo ko ba mu jeex lépp ak njéggal ak yërmande la cee ñaan ci barab boobee mu barab ñuy war a jëm kon barab boobu fekkoon am na am na laay moo fa nekk wala la fa nekk neex na kon sañ bi bu ko jar mukk muy teeru suñu borom di ko ñaan ak di ko ñaan ak di ko ñaan ay waajuram ndax xam na barsàq la fa nekk ndem nag ñoom mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam du suñu yaakaar tey ji kenn ku nekk yaa xamoon barab boobee la ca nekk ba di ko ba xel ak di digle ñu fuglu ko kon rawatina ñoon kon ñun mbokk yi kenn waruñoo gën a mën a waajal kenn waru kenn waruñoo gën a mën a tiit kenn waru mën a gën a gën a jàq ngir li nekk ci gën a mbokk mbokki nag bu ñu ko doon tënk dañ naan fukki marxala la ak ñeent fukki tolluwaay ak ñeent waaye su la neexoon nit ma ko tënk ci ñaar nit ki mbokk yi boo xasee faatu ba dugg bàmmeel ñaar rek la fay fekk bànneex walla naqar rek walla nga ne tuyaaba wala mbugal loolu nag la lay tax su duggee ci bàmmeel fekk fa tuyaaba ay jëfam rek lay doon fii ci àdduna lay taxit su duggee ci bàmmeel fekk fa naqar ay jëfam lay doon ci àdduna bu dee jëf ji rafet na tegu ci ni ko suñu borom santaane di jëfe ndigal yi di bàyyi tere yi sa kem kattan di sàmmoonteeg sa aq mbokki dëkkandoo. loo ci man soo dugg ci bàmmeel de mën nga faa fekk tuyaaba waaye bu fekkee nag da ngaa ci adduna dund gu la neex rek ndigalu suñ borom yi seetoo ko ndigalu sëriñ bi seetoo ko sàq dëkkandoo seetoo ko kooku mën naa waral bu dugg ci bammeel mu fekk fa musiba wala yaasu billah mbokk dañuy wax nit ki nag bu fa bu faatoo ba noppi ban denc ko maanaam marxala bi muy njëkk a yem muy pont bi muy njëkk a yem wala laaj bi muy njëkk a yem mooy barsàq barsàq mooy ko suñu ki xasee génn àdduna barsàq lay njëkk mooy étape bi njëkk étape bi muy njëkk a wàcc mooy boobu moom muy kër gu xat doon kër gu lëndëm doon kër gu xeeñ doon kër gu tàngit nag kër gu bari mbugal ci kan ki nga xam ni nekkutoon ci santaane borom bi nekkutoon ci ndigalu sëriñ bi dafa nekkoon ci li ko neex te mbokk xayatul barsàq yi dund gu mën a yàgg loolu la ndax am nañ bu ñu tëddee ci bàmmeel léegi ëpp na am nañ bu ñu ci tëddee léegi mat na ñaari junniy at. am nañ ëpp na ko ca it li feek wóoluñ buftu bi duñ fa jóge foofu nag luñ luñ fay dundee ak luy tax mu neex ci ñoom mooy seen i jëf kon dundu téeméeri junni at wala fukki junni at ca la nga cay dunde mooy li nga doon jëf mbokk yi jëf jooju war naa bari lool war naa sell lool war naa set lool jëf ji mooy jëf jan nag jaamu yàlla rek ndigali suñu borom yi mu santaane nga teg sa tànk sa kem kattan tere yi nga bàyyi ko ca ndigal yooyee mooy li yonent bi indiwaat suñu yaakaar ji seen xarit it ndigal yooyu dong la indi mooy jaamu yàlla door ca door ca teg leneen bar sax googu nag mbokk yi wala sax dañ ko tuddee mooy ber sax sàq kilifa wax ne bar sàq googu de ñaara fa am muy bég faawu walla mer faawu di wax nit am na fa am na am na lañ naan euh, mawu ak fooyu ndax képp koo xam ne bii la nga li la waroon sa diggante sa borom yaa ngi ci woon kooku da ngay fuuyu ndax ay xéwal nga fay am xéwal yooyee nag mën na la bañ a doy sax waaye da ngay gis ñoom si dañ dañ danañ ko yittewoo ci ñaan waaye yow kat da wax ne man kat kon xamagu xamaguma kañ la ëllëg lañ fiy jógee kon li xéwal gii ma am du ma ci mën a may kenn ki nga xam ne ay xéwalam jeex na nag kooku day mawu maw nag mooy mbëttum noor mbëtt mi nga xam ne ni mu ngi ci jamonoom noor gisul lu mu lekk benn benn ko benn benn benn barab rek lay taxaw foofa nag wax naa ne la a dimbale nit ki bi ci njëkk mooy ay jëfam bu jëf yi jeexee nag li ko fa mën a jëriñaat mooy lu mel ni bis bi ñuy waajal mooy ñaan ñaanu waaju baax ñaanu mbokkum julit fekk la fa loolu rek moo ko mën a jëriñ waaye mbokk yi ñëpp a xam ne li ñaan di baax baax baax baax jëfe gën a wóor kon xayatul barsàq yi ak dund la xam ne bii la di dundee mooy jëfam ca lu man lu mën a yàgg la loolu la nag mbokk yi dañuy wax ni saa bu doomu aadama bi jógee ci xayatul barsàq ñaareelu étape bi mooy a nafx fi suur mooy wala buftu bi mbokk yi buftu bi nag dañuy wax ni malaaka mi koy wol tey ba doon ak soufflé la day wax ni dañu dañuy wax ni mel na ni seex na ko ba dar na ñaari loxoom ci ñaari noppam li muy déglu mooy ndigalu ndigalu borom bi ndigalu borom bi rek lay déglu su ko joxee ndigal ba wol ko dañuy wax ni ñaari wol la koy wol wol gu njëkk gi mooy lépp lu doon dund dangay ngay faatu. ñaareel wal gi nag montagne yeeg garab yeeg lépp ñooy nërmeelu ñu taxañ dënd bi muy suuf si teg nee taxañ asamaan si teg nee yonent bi alayhi salaam nee na suñu wolee bufti bi ba lépp lu doon dundu faatu muy doomu aadama wala muy ak jur ñu taxañ dënd bi suñ borom nee na mën naa toog ay nangami nangami at du faale du faale ñi ci suuf foofee nag ba tey mbokk yi la fay la fa nit la fa nit di dunde wala ko fay jariñ moo doonoon nekk ci ndigal borom bi loolu rek moo ko mën a jariñ waaye lu dul loolu dana fa yëgaat mbug mbugal moo xam te ne bii dana mel ni mbugal mi mu doon yëg ci xayatul barsàq borom nag boo defee noonu ab diir nag nga xam ne kon wala ñu bufti ba pare nag kon ci la door a ñëw nag ci ñetteel bi muy mu muy alxiyaamu xayaam nag dañ ko tuddee muy polet polet yi nga xam ni moom la nit ñi def seen i bàmmeel polet polet maa nit ki alxiyaama ak yomal xam dafa bokkut mooy suñ suñ leen polet poletee ba kenn ku ne jóg loolu mooy loolu mooy taxawaay bi boobu donc wax nañu suñ borom mën na fa fàtte nit ñi ay junni junni at suñ jógee foofu nag ñëw ci ñeenteel bi mooy dajale gi ñuy dajale nit ñi nag ngir fas yéene rungu yóbbu leen ca barab ba foofu dañuy wax ni sàppe ji malaaka sàppe ji ne ñooy wër mbindeef lu mat kenn ku ne juróom-ñaari sàppe ñu leen di nag rungu fas yéene jëme nag fañaan bis penc muy yemal xiyam kon ñeenteel bi mooy rungu gi ñu leen rungu waaye juróomeel bi nag mooy barab ñu taxaw nag maanaam mu yemal xiyam foofu nag bu ñu fa taxawee doomu aadama bu nekk suñu bopp nee na léeg-léeg sax mën naa wéet ak ba nga jàpp ne yow képp la bind li nga defoon lépp yéen ñaar ngeen xam ko. waaye mbokk yi foofu la fa a doy mooy li nga defoon yàgg sa borom képp ngeen xam ko foofa ñëpp koy xam li nga defoon ni nga ko xamee yàgg sa borom foofa ñëpp koy xam kon foofa amul sutura loo defoon ci lu baax ñëpp dañ ko xam loo defoon ci lu ñaaw ca nga jàppoon ni kenn xam bëggoo bëggoon mu xam ko fii foofa ñëpp ko fay xam barab yooyu yëpp ma wax nag mbokk yi ba tey la fa mën a la mën a dimbali nit ci mu bañ a metti ci moom wala mu bañ koo yëg mooy ay jëfam mooy jëf yi yim mu doon jëf fii. ndax dañ xam ni ak ndimbal wala ak ramu àggaguñ fii moom sa jëfi bopp rek moo la fi mën a fekk ak ak i ñaan bu ñu xasee nag wala buftu bi foofa ñaan amatu fa sa jëfi bopp moo la fay moom nga fay mën a àndal. mbokk yi wax nañ bu demee ci bu jógee ci barab boobu muy yemul nag foofa nag kon juróom-benn juróom-benn marxala bi mooy kitaabul amal léegi nag ñu commencé séddale téere yi kenn ko ba nga ganee jamono ci àdduna ba ba nga fiy jóge lépp loo def ci lu baax lépp loo wax ci lu baax bind nañ ko muy aw kayit lépp loo def ci lu ñaaw lépp loo wax ci lu ñaaw bind ko muy muy aw kayit loolee dama tax alxuraan di wax ni ku jot sa téere salot sa wetu ndijoor kooko de dana bég dana am dana dana sant waaye képp koo jot sa wetu càmmoñ trox toroxtaange ak mbugal dab na ko mbokk kan mooy jot ab téereem ci wetu ndijooram mooy ki nangoon a sax ci ndigal borom bi ki nangoon a topp sunu wa salaam ki nangoon sax ci ndigalu sëriñ bi. kooko de moom faaw mu jot ab téeréem ci ndigul ci am ci ci ci ndijoram waaye ki nga xam ne moo jot ab téeréem ci càmmoñam nag mooy ki nga xam ndigal borom bi moom daw ko lijjanti lu suñu borom santaane yoonam niwu ci ak jàmm yàlla yoonam niwu ci lu yonent mbax wax mu ne xamul luy sunna lu sëñ bi santaane mun ne ci la ko gënal kooku de ala kulli àll ci càmmoñam loo ko jotee mbokk yi barab boobu mooy juróom-benneelu barab bi su kenn ko ñu jotee sa téere ba noppi nag la ca mooy sa jëf jooju ñu réglé ko mooy alxisaab alxisaab mooy fukki ru mala fukki mala xare mooy juróom-ñaareelu tom juróom-ñaareelu bi mbokk yi barab boobu suñ borom balaas yi muy teg maanaam muy rek maanaam alxisaab mooy réglé jëf yi léegi yow kat kaay ñu xool sa jëf yi julli woon nga nangami julli defoon nga nangami koor saraxewoon nga loolu dañ koy réglé ba xam ndax ngi sala taxoon wala déedéet loolu mooy loolu mooy réglé jëf yi donte dañ koy jàppee mu la wax sa julli yëpp dara manqué wu ci woon sa tuyaa bi koor yëpp dara manqué wu ci aji dara manqué wu ci yow ko daan sarxe nga ku daan dimbali nga loolee dañ koy gëstu ba xam ndax ngir yàlla moo taxoon wala ngir nit ñi jëf ji ngeen jëf ndax am lu ci taq wala déedéet loolu moo loolu mooy réglé jëf yi gépp jëf juñ juñ xool fekk jëf ji yàlla taxutoon jëf ji dañ koy delloo jëpp juñ jëf jëf addo joo joxe woon nga xam ne ngis ngis sala taxoon dañ koy delloo julli goo doon julli bëggoon nit ñi tàgg la dañ koy delloo kon dañaan naan jëpp jëf joo def ci yàlla taxut ngi sal tax jëf jooju dañ koy dindi kon loolu mooy réglé jëf yi suñ noppee nag jóge ci juróom-ñaareel bi ñu ci juróom-ñetteel bi mooy peese jëf yi booba nag jëf yëpp segg nañ ko bañ xam ne lii moom lu baax la ñu teg nee lii ab safaan la ñu teg nee suñ borom ab balaasam dañoo wax ne ngelaw sax boo ko cetee tegoon ngelaw dana yëngu ngelaw sax boo ko ci tegoon dana yëngu bu ko defee nag. suñ jëlee barab boobee suñ jëlee euh, euh, jëf ya la ci lu baax lépp ñu teg ko ci balaas yi jël ab safaan teg teg ci benn place bi bu yàlla dogalee nag lu baax la wat kooku kon mooy ka texe bu yàlla dogalee lu bon la wat nag kooku mooy ka texe di kon loolu mooy juróom-ñett juróom-ñetteel bi juróom-ñetteel bi nag mooy jéggi siraat jéggi siraat nag mbokk yi kem jëf yii nii sa jëf sa jëf sa jëf ju rafet ci nga koy jéggi mooy dañoo xam ne am na ñoom siraat bu ñu koy jéggi dañuy mel ni oto xam nga lu ko waral mooy seen jëf yu seen jëf yu rafet moo moo bari am ñooñu dañuy mel ni avion am ñooñu dañuy mel ni kuy kuy daw am ñooñu dañuy mel ni kuy dox am ñooñu mel ni kuy raam am ñooñu sax fi ñu nekk mënuñu fee jóge mooy borom borom jëf yu ñaaw yi fi nekk duñu fi mën a jóge dañ leen diri way laa way laa ñu ñu far sorux foofu nag mbokk yi boo jigee ci juróom-ñeenteel bi nag bi ci raram muy ñëw nag ndax yow xool nañ say jëf ba xam ne yi mi ko sa jëf ñaaw moop kon kooka fa mu jëm safaan ba foofee nag fële fukki bii ñëwee muy ramm foofee nag foola see la xam ne waxoon ni suñ ba may na ko am ramm foofa nag ku am comme ndimbalul yàlla wala nga am waaju baax joo xamoon ci nga xam ne bu ko woon ci ci ñi mën a jàll foofa lañ lay doon ramme waaye lu commencé barsàq ba fii foofa mbokk yi loo fi loo fi jànkonteel sa jëf yi bopp képp moo la fa mën a jàllale bu ñu ramee bu buñ jéggi siraat nag kon fa fa ngay fa nga koy teg mooy al araf muy arafa muy muy fi ñu naan laraaf laraaf mbokk yi barab la boo xamante ni bii boroom xam-xam yi nee na du sax foofa ku kuy dem àjjana danga fa jaar ndax foofa dañoo wax ni ñi nga xam ne seen i jëf dafa tolloo biñ biñ peese seeni jëf lu baax li ak lu bon li dañoo yem ñooñu dañ fay escale waaye ala kulli al da nga fay nekk ba mujj. waaj a baax dimbali la nga dem fekki àjjana wala nga jógee fa dem safaan ba waaye laraaf doonut doonut kër guy sax moom mi ngi nekk ci diggante àjjana ak sabara waaye sa jëf bu fekkee sa jëf yu baax sa jëf yu dañoo tolloo da nga fay sax ab diir nga am dimbalil yàlla wala nga am safaan ba dem ci ba soo jógee ci fukkil ak ñaar nag kon fukkil bi ak ñett wala fu bi ak benn fukkil bi ak ñaar kon kuy dem àjjana nag fa nga njëkk fa ngay njëkk a mooy kaw sara kuy dem àjjana maaw kawsar ngay njëkk naan nga xam ne foofu ku fa xës naan duuta mar mukk imma kon àjjana mooy fukkeel ba ñett wala fukkeel ba ak ñeent àjjana fukki fukkeel ba ak ñett kon mbokk yi diggante àjjana ak sawara ndekki nit ki fukki étape ak ñaar dox na fi fukki étape ak ñaar yooyu nag benn bu ci nekk nit ki dana ci jaar siraat dañ koo tëb siraat dañ cee dañ koo cof rek waaye siraat ñëpp xam ni dañoo wax ni ab pont la buñ teg mu tiim jahannama nit mun a dem àjjana ci jarul siraat muy barab bu sew barab bu ñaw muy waxtu lëndëm waaye say jëf bu dee jëf ju baax la da lay leeral comme comme ni caméra bi di leerale soo ko regee soo ko tegoon ci lëndëm da xam fa ngay jaar borom jëf yu safaan ya nag moom wala yasubilaay mooy ña nga xam ni kon duñ mën a jàll. kon mbokk yi fukki marxala ak ñeent yii képp kuy ab julit war nga ko bàyyi ci xam mi ngi sa kanam moo tax soo xam ne bu kenn ndamu ci jigéen siraat ba jàll kon nit ki mënut a gën kenn wala nga gën a kawe kenn lu da ngaa jéggi saraat ba xam ne mucc nga yii yëpp nag mbokk yi li ci mën li ci mën a musal nit ñaar rek la bi ci njëkk mooy sa jëf ju baax say jaamu yàlla gannaaw ba ñaan yii lu mel ni bis bis bi ñu dëgmal muy ay ñaan di fa fekk ay sax di fa fekk ay ndimbal di la fekk yooyu rek moo la ci mën a musal kon nag nañ baril jëf ji muy suñu diggante suñu borom waaye gannaaw ba loolu jàllee nag nañuy baril ay ñaan ngir loolu rek moo ci mën a musal kon ñoo ngi leen sant baax di leen gërëm di yàlla ñu yàlla boole dimbale te boole ñu jégal wasalaamaaleykum wa rahmatullah moo téema yog dénkaane waat fàttali waat te soññe ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig bi jege